على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد علينا ولا ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد سماحة الخليفة الشيخ محمد المعين شيخ الإسلام والسعادة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم سلام من الله ورحمته وبركاته عليكم طاب ربيعكم وطاب وطبتم وطاب ممشى يحفظنا وإياكم بما حفظتم به سنة الشيخ إبراهيم من بعده ويكرمنا وإياكم والنجاح القبول في ليلتنا هذه ويعيد كل احتفال أهاليهم سالمين مقبولين فائزين نقوم بسؤل كلنا وسلامة كعدد الناس أصلحوا ذكر الله سعيكم وبارك جهودكم وعمل الخير تعالى ñu Maulana al Khalifa Cheikh Mouhamadul Mahi di ko ñaanal ko ñaanal yàlla mu dolli ko tawfiq ñu ko nuyoo xadara bi yépp waaye di nuyu seeni gan di gani yonent sallallahu alayhi wa sallam bàyyee ko ci gox yu fasantikoo yi ci àddina bi ngir ñëw teewee si xew-xew bu màgg bi ci barab bu tedd bi di barab maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu ngi nuyu kilifa yépp bëgguñoo dugg ci lim waxtu yi du ko maye waaye nuyu nañ ñépp ndokkeel ñépp ziyaara leen ci guddi gu tedd gi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu mottali ko te màggal suñu cër ci barke borom guddi gi boole ñu ci liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi ñi nga xam ne yàlla dafay nangu seen liggéey ci buntu Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñépp dellu gannaaw bu leen yàlla nangulee dafa leen fajug aajo ñépp dellu seeni kër fekk seeni njaboot ci jàmm ànd ak yiw ànd ak barke thème bi nga xam ne moom lañ bëgg waxtaane mooy duruusun wa ibarun min siirati lmustapha sallallahu alayhi ay leçon lañ bëgga jëlee ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yan leçon lañ mën a jëlee ci dundam bu tedd boobu moom alayhi salaatu wassalaam matangkon ko ci ñent su tem tem اخلاق الرسول قبل البعثه بو نيارل مشاركته المبكره في بناء المجتمع بتي موي اثر خلقه صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوه بنيانتل بيت موي مجبي موي تواضعه وحلمه وسماحته ورفقه بالناس لول موي جيكو تامبو بو ديك دي موي جيكو يونتبي صلى الله عليه وسلم ييغا خامني مون كورون جيكو نجيك صاح يالا ديكو يوني لول موي سون تامبو بو ديك تامبو نياارل بي موي نيم دون بارتيسيبي ci lépp luy jëriñ société bi ak lépp lu aju ci tabax société bi ak lu aju ci développement ca ndawam tooy te mu ñetteel bi mooy jeexiti jikkoom yu rafet yooyu ci tasaare ooteeb lislaam te mu ñeenteel bi te mooy mujj bi mooy modeste bi nga xam ne moom la àndoon ak wàccee bi wàcce woon boppam te màgg lool ci yàlla ak lawet gi mu làmboo woon ak jàppandi gi mu jàppandi woon ak jege gi mu jege woon nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi ku ne xam na ne yàlla daf ko waajal méngoo ko ci léppam tànnal ko famille bu mag bu tedd may ko mu gane àdduna gane àdduna bu teey ànd ak laab ci zahir ak ci batin waaye mu yàlla may ko ak ndawam dafa nekk ndaw ak ngone yaam dafa nekk ngone yaa goo xam ne dafa mucc ayib paaseem lépp buñ ko nettalee muy tegtale ne ku musa màndu la ku musa jub ku musa dëggu la ku musa Euh, baax la moom yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag ndaw ñi mën nañ cee jàngee ñoom ñi nga xam ne ñoo ci tollu ne ak ndaw am na solo nit ki war na koo paase ci lu am njëriñ sàmm image am ak boppam ndax boo ca xajamalee dara bu ëllëgee mën ngaa dabaatal sax waaye nettali ba du rafet moom mucc na ci loolu sallallahu alayhi wa ci nettali bu ñaaw lu nettali ci paaseem ak ndawam ak waxambaaneem rek mu nekk lu rafet loolu ndaw ñi mën nañ cee jàng bu baax bu sayri nee na alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakada nujabaaw nee na dafa musa wéet taay ak di jaamu yàlla ak di xalaat ci yàlla di beru caaxaani waa Màkka ya te booba ndaw la mu ne ñu baax ñi naka jekk loolu mooy seen melokaan tomb ñaareel bi mooy participation bi nga xam ne daf koo teel a ci luy tabax société ba yonentu sallallahu alayhi wa sallam musta beru nit ñi ànd ak lim nekkoon ci yàlla yépp ànd ak li ko yàlla yëkkati ci kaw mbindeef yi yépp ànd ak société bi nekkoon di ci dund ni ña ca nekk nañ sàggan sàggan yépp mosu leen a beru daf doon jaxasoo ak nit ñi ngir xam leen jàng leen ndax moo leen war a jubal jubbanti seen mbir yéwénal ko nekk seen ilimaan te nit ñi boo leen xamut doo leen mën a jubbanti doo leen mën a jëme fenn loolu dafa teel a feeñ dafa mel ni euh, Cheikh Mouhamadul Amin wakiilu daadin moo si euh, marhaban bihi kon ñu taxaw tuuti la galera Ira. jërëjëf ñu ngi tatagal suñu sëriñ aminul waxyi wa wakilu daadin Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin borom gàmm gi moo yegg si noonu yàlla yàlla yàggal ko ci kanami jullit yi yàlla na yàlla saxalal may ko wér te saxalal ko ci barke baayam Mawlana Cheikh Serigne moom soppe Mawlana Cheikh Ibrahim barke borom guddi gi ñoo ngi woon ci quelques leçons yoo xam ne mën nañ koo jële ci dundu boroom guddi gi Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma doon wax ne ku teel a enu responsabilité la ku teel a intéressé wu ci lépp loo xam ne dafa yitteel nit ñi di participer ci luy jëme société bi ci kanam ma ci ma tolloon ci ne ba muy ndaw lañ gis ne ku teel a am métier la ku teel a liggéey la doon na sàmm ay gàtt di ko sàmmal waa Màkka nim ko waxee ci xadis ma baata allahu nabiyan illa wara alganama saxaaba yi ne ko wa anta ya rasulallah mu ne xatta ana kuntu araaha li ali makkata ala qararit mu ne yàlla yónniwut benn yónentu musta yónni benn yónentu lu may sàmm na ay gàtt sàmm na mécce woo na sàmm ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man daan naa ko daan naa sàmmal waa màkka ay gàtt ci ay fifteen ndaw yi man cee déggee ne teel am métier am na solo te xeeb métier baaxut ndax bu doon xeeb métier moom mi gën a màgg ci mbindéef yi mën naa wax ne dafay tànn nekk amee kaaba gi ay maamam ñoo doon amee caabi ji wala muy amee féetewoo zëm-zëm bi waaye déedéet dafa tàmbalee ci di sàmm ay gàtt ñu bañ a xeeb métier mbokk yi surtout ndaw ñi bañ tamit xeeb salaire ndax moom nee na ci ay 15 ci niñ ko mën a waxee da doon sàmmal waa Màkka loolu di wane ne nit dafa war a jàpp ci li jàppandi li mu am tey di yóotu nag lu ko ëpp ba bam cay àggee ëllëg loolu jàngee nañ ko ci loolu dem na ma Sham ñaari yoon benn bi mu ànd ak baayam Abi Taalib fukki at ak ñaar la am booba di commerce di yaxantu demaat fa ànd ak na feru Xadijatu say euh, muy Maysara di yaxantu ci alali Sayyidatuna Xadija booba it ndaw la ci tënk rek

tax taxawaayam moo waral jàmm am ndax ba xeet yi di xëccoo ba ñu egsee ci teg xajarul aswad muy doj wi palaasam ñu koy xëccoo ba bëgg a jur fitna ku ne naan xeet wu ne ne maa koy teg du ko bàyyee sama morom muy jël ndam li ñu mujj juboo ci ne baab bani shayba te bale képp ku fa génnee nañ dogg ci ne moom moom la yàlla jox cër bi sang bi borom guddi gi ne tëll fëlee fa ñina amin rabina rabina amina ngo kuur ki mangu nañ li yalla li ñu yalla tanal bam mu sallallahu alayhi wa sallam wéetowu ko waye dafa la lam kalam ñu tek ca dojo ñepp japp ci kala gi ñu don xëccu ñepp ñu yobbu ko ba ca barab ba mu tek ko ci loxom yi teddi sallallahu alayhi wa sallam loolu ne ku monona ut indi ay solution la ci ay problème ak jafé jafé sallallahu alayhi wa sallam Euh, buñ ko toppee dinañ gis ne ku yaatu la ku ubbeeku la itam ndax ba muy yebal saxaaba yi ci addis xabasha muy Éthiopie ci lu teel booba ubbeeku moo ko waral ndax ka fa nekk buur ba fa nekkoon chrétien la mu yebal ay njabootam ngir ñu dem làqu ci ronam loolu di wane ne mbokk ñim bokk ak diine ñoo ko gën a jege ci ñim ñi nga xam ne ay animiste lañ wala gëmuñu diine loolu di wane ne ñi bokkut ñi gëm diine même bu fekkee sax diine yañ gëm bokkut am na lu leen takke am na lu leen boole ndax diine yépp ci cosaan ñoo tasee ci gëm yàlla tawxiid ak gëm bés pénc ak gëm yonentu yi li leen boole moo ëpp li leen wuutale loolu it jàng nañ ko ci taxawaay bu am solo boobu mu taxaw te booba ndaw la taxawaay yooyu yëpp nag mu def ko ci ndaw kon ndaw ñi ñu am place lañ ci lislaam ndax Mus'ab ibnu Umayr doy na ci misaal jox nañu ay exemple yu bari yu wane na ndaw taxawaay ndaw ci lislaam lu am solo la ndaw la loo xam ne bokkoon ci famille bu bari alal waaye mu bëgg tànn yàlla ak yonentam dem na ba bés yonent bi salaa sallam gis na ko ci màkka mu sol yére yu ràpp yu xotteeku yonent dégg nga te dox nañ ne mooy waxambaane bi dàqoon a sañse ci màkka bu rombaan sañseem bi la ñëpp di xool kawaram gi daf koy diw muy nes na si mbedd mum jaar bàyyi fa xeetu parfum mu mujj dem ba moom moomu loolu yépp mu jaaye jaaye ko jëndee ko yàlla ak ab yonentam kooku ndaw la woon def na lu bëri bu temps woon ñu yaatal ci taxawaayam ku teel a sacrifié wu la sacrifié fameem ak alalam ak yépp ngir oote yàlla bi taxaw liggéey ci société bi yonentu yebaloon ko sallallahu alayhi wa muy jàngale ko tasaara diine ca Medina Munawwara ci lu teel euh, du ñëw ci lu bëri ci moom waxtu wi du ko maye usaamata ibnu zeyd bi ko yonentu di sallallahu alayhi wa di jiital ci ab xare boo xam ne sidna Omar a nga ca sidna Abu Bakr a ngi ca kibaaru saxaabati te moom amul lu may 17 ans mu yilif leen loolu wane na ne nekk ndaw terewut a am responsabilité bu fekkee mate nga ko ci jikko ni ko bàyyi di waxee ak ci xam-xam euh, ku mel ni Rafi' ibnu Khadij nga xam ne moom it tamit ci at yu néew a néew la ñëw ci yonent bi keroog Badar ne ko damaa bëgg a bokk ci ñuy xeex yonentu yërëm ko ndax atam yu néew dàq ne ko nanguluma la ko mu am lu ko metti lool ndax lim bokkut ci xare bi ca Uhud mu delsiwaat sàkkuwaat ci sang bi sang bi nangul ko ko ñu jam ko jam bu métti ba xeej bi sori ci moom yonentu xam na du sobe mu ne ko tànnal ñu bàyyi xeej bi ci sa yaram boo wuy jee yàlla bu keregooy bés pénc ma seddeel la walla nga ñu jéem laa faj mu tànn ñu bàyyi ko mu noonu mu faatu am shahada mu na mu dem wuy ji boromam kooku ndaw la woon buñ ko toppee day gudd waaye jigéen ñi laa bëgg wax ne pour kursoog temps bi desuñ gannaaw ci taxawal lislaam ak liggéeyal ko sayyidatuna Xadija moom ku ne xam na taxawaay bu rëy ba mu amoon ci kanami ci wet ci pegg yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu teel nga xam ne ba mu jaaxlee ñëw naan ko man dama jaaxle ci sama bopp dafa mel ni damay bëgg a jommi mu ne ko yow yàlla du la toroxal mukk du la gàcceel mukk ndax da ngay jokk bokk da ngay ganale gan dangay indi ci dëkk lu fa manqué moom la Mawlana Cheikh Ibrahim di wax ne radiallahu taala anhu wa yaxmilu këllal kulli li bay fi mukriman yuinu ala daraayi للخير جالبا محمد الهادي الأنام سعادتي لقد كان للمعدوم والخير كاسبا bàyyi wéy waxi sayyidatuna Xadija boobu mu waxoon sang ba ngir dalal ko ak defal ko ñu gisee ci ne yi tamit góor gu màgg foo ko fekk soxna su màggam ci wetam di ko jàppale te borom mission war naa tànn soxna si muy ànd ak ndax bu échegee ci tànn soxnaam échec ci mission am bi jàngal nañu ko sallallahu alayhi wa sallama jàngal ñi ne jigéen ñi ci lañ mosuñoo des gannaaw euh, kooku sayyidatuna Xadija la waaye bu ñu seetee dañuy gis ne itam ku mel ni asmaaw bintu abi bakrin euh, as-siddiq zaatu nitaqayni moom it exemple la ci jigéen ñi surtout jigéen ñu ndaw ñi ñi féetee ndaw ndax ci gàddaay bi taxawaay bu rëy bi mu amoon ci gàddaay bi nga xam ne moo doon yót sang bi ak baayam Seydina Abubakrin seen añ ren ba mu rendee gàtt ba defaral leen ko def ko ci mbuus jóg amut lum takkee mbuus mi mu jël li ñuy wax ceinture-am ndax booba jigéen dafay takk ndigam buy liggéey nga xam ne bu takkee ceinture boobu bés li mu bëgg a liggéey yépp dana ko liggéey te du tekkeeku ndax bu ko defut sërëm mën na di tekkeeku di ko yàqal liggéey moom loolu la ci takkoon daf koo jël xar ko ñaar bi mu delloo ko ci ndiggam ngir suturaal aw boppam bee mu takkee ko mbuus mi yót ko baayam ak sang bi sallallahu alayhi wa sallama nga gis xarañ gi waaye gis tamit itte ji waaye gis tamit te loolu yépp li ko anime mooy cofeel gu rëy gi mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama saxaaba yi ak yu góor yi ak yu jigéen yi boo gisee niñ doon liggéeyee yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne dañoo jeex ci moom tàkk dañ ko yéene li ñuy def bëgg ko xër ci liggéeyal ko ñoom saxaaba yi moo taxoon seen liggéey rafet lool te daf ko donn ci baayam sidna Abu Bakrin ndax sidna Abu Bakrin ku ne xam na ko waaye nit yàgg naa am taxawaay yàgg a baax te ay njabootam meluñ noonu abubakarin nag yàlla daf ko jagleel lim bëgg nekk ci muy lislaam ak yónnente yàlla bi njabootam gi dañ ko cee dimbale dañ cee jàpp ànd ak moom yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp ci bëgg gi ñu bëgg bàyyi bëgg ko yónnente bi sallallahu alayhi wa am na soxna soo xam ne ci lansaar la bokk mënuñoo ñàkk a wax mbiram ndax keroog bi nga xamee ne Uhud ñun ci xare bi moo amee woon ndox di may soldaar yi ñuy naan boole koog di aar yonent bi di ko défendre ba yonent bi salaa salaam wax na ne gestuuma ndeyjoor wala càmmoñ lu may gis naa soxna sii mu may défendre ak ki nga xam ne ansaar yi bi nga xam ne wal ansaar la jigéen la moom dañ koo wax ne ko rey nañ sa doom rey nañ sa baay rey nañ sa càmmiñ rey sa borom kër mu ne ana yonent bi sallallahu alayhi wa di wër rek naan ana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu egsi ci moom ne ko kullu musibatin baadaka jelale bépp musiba bu la fi bàyyee yow rek lu musiba rëy rëy bu la fi bàyyee yow rek musiba bu xeebu la musiba bu yem la ñoom foofu lañ tolloon ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye foofu lañ tolloon i tamit ci liggéeyal ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu nekkoon ku woyof lool wàccee boppam lool ñoroot na ci xadis ñu ne ñu ne in kaanat il amatu min ahli lmadina la taaxudu bi yadi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها gone gu jigéen gu ndaw walla gu góor daan na yëkkati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci soxlaam mu ànd ak moom di ko doxal soxlaam feeg soxlaam fajuwut du dëpp dem këram loolu woyof mënu ko paas bokk na ci liy wane woyofam bu ñëwee cib jotaay fam fekk sàppe si yem rek mbooloo mi yem rek fa lay toog du xuus mbooloo mukk sallallahu alayhi wa li ñu bëri def tey loolu moo tax ñi daan ñëw di ko seet si te xamuñu ko buñ ñëwee fekk ko ci biir saxaaba yi duñ ko ràññeek ñoom ndax amul lenn lu koy ràññee ak ñoom xanaa màggaay ba ak taar ba waaye du ci colaay du ci comportement sallallahu alayhi wa sallam ba sax am na aaraab yi bu yu bëri daan ñëw di ko di laajte nag kan ci yéen mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni roog lool borom tant bi borom néeg bii ci suñ gannaaw borom jumaa ji borom kaala gi Mawlana Cheikh Islam radiallahu anhu wax nañ ne toog na fii benn bés am ku koy dégg turu rëy lool ak jëf yi mu ñëw di ko laaj te fekk ko fii ak jamput beeg yëre yu woyof yi mu toog ci mbaar mi mu ne ko ana sëriñ bi mu ne ko waxal sa soxla mu ne ko ma ne ana sëriñ bi mu ne ko waxal sa soxla ba mu ñett yoon kooka mer naan ko buur aayut ba dag yaa aay ma ne ko buur bi nga euh, sëriñ bi ngay wax ak de loolu daf ko doon ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la woyee fa woon al muhaadir bi fi toogoon léegi muy conférencier bi euh, suñu euh, mbokk Cheikh Baye Bachir wax na bari ci loo xam ne dama ko tënkoon duma ci jaaraat ni ki nim doon liggéeyale waa këram di leen daggal ndawal di leen baleel ak daraja bi ko yàlla jox ak ni mu toll ci yàlla ak di liggéey liggéey waa këram yépp moom sallallahu alayhi wa sallam tey góor ñi sama classe yi nanguwuñ ko nanguwuñ koo defal soxna yi te moom gën ci mbindeef da ko daan defal soxna yi wa yaxdimu lil ahliina yaxsifu naalahu wa yaxtaawu laxman wa bi thawbi yarqaaw loolu na ko bàyyi wéyee radiallahu anhu ah, daawut sant saxaaba yi liggéey toog di seetaan ndax bañuy tabax jumaa ji ca makka ca medina al munawwara ngeen baal ma moom bokkoon na ci ñuy yenu birik di yenu suuf sallallahu alayhi wasallam ak yeneen misal bu temps bi maye woon yoo xam day wone ca gàtt ba ba mu demee ne len bayi len ma taxane len len wala am ku taxani am ku ki mu ne man it ma jàpp ci liggey bi kon da daan liggey ñu wone ci ne kilifa do kilifa it watta tere ngay ànd ak nit ñi ci lépp loo xam ne luy amal nit ñi njëriñ la ni nga xamee ne suñ kilifa yi noonu lañ ko baaxoo ah, liggéey bi ak jumaa jéeg lépp biñ koy tabax fii ci Medina kilifa yu mag yi yëpp dañ doon tibb di sotti loolu taarix nettali nañu ko loolu yëpp di wane na démb mooy tey mu nekkoon ku lewet moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam lewet lool defe naa xissa taif wane na ko dem di fa tasaare yaakaar ci ñoom lislaam yaakaar ci ñoom ndimbal ñu xiir ci moom dof ya ak xale yi ñu sànni ko ay doj ba tànkam yi di naaj sallallahu alayhi wa sallam waaye moolaana cheikh ibrahim nee na ca mbaax ga ak yërmande ga daf ne allahumma ahdi qawmi fa innahum la yaalamuun yow sama borom yàlla nga jubal sama nit ñi ndax dañoo xamul rek bàyyi radiallahu anhu di ko commentaire commentaire am bu bu neex ba te riche ne bal na leen emul ci bal na len layal na leen emul ci layal na len ñaan na na leen kooku mooy ki nga xamne yàlla daf ko yoni mu nek rahmatan lil alamin wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mooy aynu rahmati rabbaniya niñ koy jàngee ci jawaratul kamal ci wazifa bi dëgg-dëgg mooy aynu rahmati rabbaniya moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam liñ tënkoon ci yërmandeem ak taxawaayam dafay gudd waaye lewetam ma indi ci lenn rek zeyd ibnu saanata nga xam ne kenn la ci borom xam-xam yi yahuud yi daf ko doon nattu di xool ba xam li muy wax dëgg la yonent bi yàlla la mu ñëw ci moom fekk ko mu génnee ci ab jógee ci ab dëj ànd ak saxaaba yi mu fekk ko ci digg saxaaba yi poñe ko téye ñaari kiyam cati mbubbam poñe ko ba yonent bi xonq tur ne ko fay ma sama bor te fekk moo defoon pexe ba lebal ko ngir bëgg ko am bunt ci moom natt ko Sidna Omar mer xam ngeen ko gàddu jaaseem nekki dama koy rey léegi ma daaneel foofu yonent bi salaa sallam ne ko omar ñun amna na luñ gën a soxla ci lii nga maag moom ci lii nga bëgg a def wax ko mu rafetal ni muy wax ma man ma rafetal ni may ko dolli cinquante kilo ci tiital gi nga ko tiital yóbbu fitam na ko tegal ne ko man alal taxumaa Jog jéggale naa bor bi dama la doon nattu di seen ndax yaay waaja waaye yaay waaja tigi amut sikk kooku mooy waaja ñu ngi wax ne liñ tënkoon ëpp na loolu waaye ah lu dul jeex luñ ci am rek nañ ko doyloo rawatina lu tool ni dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo ci am rek ah doy na leçon de vie yàlla nañ ko jëriñoo yàlla na yàlla mottali guddi gi defal ñi ci suñ càkkuteef dëppali ñu ceeg ah, santaane baay ak ngërëmam te yàlla magal suñ cër ci gamu gi yàlla bu muy suñu mujj ak gàmmu yàlla yagal fi khalifa bek Cheikh mohammed Lamine ak kilifaay pay bi ak talibe ak muqaddami wa kullu amin wa antum bi khairin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu allahi taala wa barakatu Cheikh Mouhamadul Bukaar jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ci conférence bu sell bu màgg bi ñi الشيخ محمد الأمين الشيخ إبراهيم Niass wakiilu Tacd mi nga xam ne taalibe yi namoon nañ ko bëggoon nañ koo gis tey def ne lum xat-xat ak lum métti métti ak lum sonn sonn dana ñëw fii xool leen ngeen xool ko mu ñaanal leen yàlla ngeen ñaanal ko yàlla su ko defee ñu mën koo yewi mu àgg ca kër ga noppalu sëriñ bi ñu ngi kontaan bu baax ci sa teewaay fii ñu ngi lay ñaanal yàlla